bis bi daanaka ñu ngi ci suñ dixième édition depuis 2012 ñu ko doon def dañ ko doon def ci cadre bu ndaw chambre de commerce mais cette dernière année nii lañ koy defee xam nga xale yi dañoo war a am seen bis seen bis ah, te wax dëgg yàlla képp ku ah, ku xam ah, njariñu xale da nga ko jàppale da ko jàppale ndax xale mooy nekk ëllëg. kilifa xale yi nekk ñoo xam ne nii ah depuis li leen bi distribué tey ci ay cadeau mën na 15000 cadeau léegi nag loolu ay goûter la li ci des suñ conseillers yi danañ dem quartier kii ci école bu ne ñu defal leen ko mais ambition bi mairie bi am mooy pérenniser ça ba nga xam ne nii dana nekk un jour xale ci Sénégal yëpp fii la ñuy man fee def ah, assemblée des enfants wax fi seen i ndax xale yi xam nañ seen problème ñaareel ba tamit mooy fexe ba gën leen a jàppale ba école yi nekk cadre bu am solo boo xam ne nii dana nekk foo xam ne danañ sawar dem fa ah bu la lépp paree nag incha allah ñu fexe dénk leen pour que ñoom tamit ñu gën a góorgóorlu ci seen liggéey gën a góorgóorlu ci seen jàng gën a respecté seen i parents xam ne ñoom ñooy l'avenir du Sénégal. waa critères yi nga xam ne nii mooy liy dem ci école yi. jàngalekat yi ñoo ko tànn critères yi nga xam ne moo dem ci mairie bi kooku personnel bi lañuy laaj kenn ku ne andi sa xale critères yi nga xam ne nag mooy goûter yi critères yi ci quartier yi ci ASC yooyu ci lañ ko tànn jox leen ay invitation ñu ñëw jaar naa ci métit jaar naa ci lu neex ndax samay parent gàtt nañ ma samay parents yóbbu nañu ma ma jàng ma xam luy métti waaye bi ma réussir dañ maa gàttee bi ma réussir ba ma ko alxuraan sa papa dafa ñëw fii jëlal ay égyptien ñu jóge Égypte ñëw tari jàngal ma alxuraan mu nekk tari alxuraan mu nekk fête bu rëy. goûter. nee na à peu près dañu defar dix mille goûter ñaari junniy goûter. moom la ñu jox xale yi. nee na moom la ñu distribuer les enfants. boo jëlaatee dix mille goûter yooyu. boo jëlaatee dix mille goûter yooyu. boole trois mille cinq cent cadeaux yi. boole koog trois mille cinq cent cadeaux yi nga xam ni offrir na ko élèves yi. muy treize mille cinq cent goûter et cadeaux. muy treize mille cinq cent goûter et léegi nag mu ne du ma yem foofu. monsieur le maire nee na était là bien foofu. waaw parce que a waaw monsieur le maire amul taxaw moom. amul taxaw ah la progression est avec les enfants. sky is our limit. yes sky our <laughs> asamaan si mooy sunu limite. kon monsieur le maire nee na amul àpp ak xale yi lu mu mën a jëm kaw gën a jëm ca kanam rek mu gën a ñoŋ dana ko def ak doomu kaw la. waaw léegi léegi bu mu defee loolu ba pare. nee na bi monsieur le maire defee loolu ba pare. mu ne dañ ma dénk institution bu bees. nee na dañu koo dénk institution bu bees boobu ban la. léegi nag moom lu muy def dafay boole moom. nee na lu muy def nag. dafay boole utile à l'agréable. nee na day boole l'utile à l'agréable. moo tax mu choisir jox leen matériel scolaire bi. nee moo tax mu choisir jox leen le matériel scolaire. pour que xale yi. pour que xale yi. bo pour que xale yi. pour yi. daal ci seen bopp ne. daal ci seen bopp ne. bu ñu joué ba ba pare dañoo war a jàng. bu ñu joué ba pare dañu war a jàng après le jeu c'est le travail. waa léegi mu jëlaat beneen 500 kit moo nekk nii. nee na mu jël beneen 500 kit scolaire. boo xam ne. boo xam ne. daf ko jagleel personnel municipal bi. nee na dafa ko jagleel le personnel municipal. et les élus de municipaux. et les élus municipaux de la mairie de Kaolack. vous remercier chaleureusement pour tout ce que vous faites pour nous. Papa Serigne vous êtes l'ami des enfants. Vous aimez les enfants. Nous aussi, nous vous aimons. Chaque année, vous nous donnez beaucoup de cadeaux, même lorsque vous n'étiez pas mère. Aujourd'hui, vous voici encore pour faire la fête avec nous en présence de nos chers parents. vous faites pour nous, mais aussi rendre la vie plus belle. Kaolack est propre, Kaolack est beau. Un message à mes chers camarades. Après la fête, c'est le retour en classe. Faisons plaisir à nos parents en travaillant bien à l'école.